donc assemblée euh, ni muy doxee ak ni mu tëddee xam ngeen ko euh, tey war nañu def la modification de l' article 87 de la constitution examen examiner ko euh, déjà ban xalaat ngeen am ci loolu. waaw mais article boobu ça pose énormément de problèmes d' abord c' était pas un consensus lors du lors du dialogue deuxièmement c' est au aux députés siéger sur la la branche sur laquelle vous êtes assis député dañuy jaar fenn ñu far leen ñu jaar par voie ñu jaar laaj askan wi askan wi tabb leen assemblée nationale jóg ñu bëgg dugal léegi ci benn article boo xam ne 87 bu ñu nee ne président de la république mën na consulter premier ministre ak président assemblée nationale pour dissoudre assemblée pour dissoudre mais ça c' très grave parce que loolu day wàññi non seulement doole assemblée nationale déjà que assemblée nationale li ñu wàññi si doole bëriwul yàggul ba ñu defee réforme fii 2006 pour ne dañuy consolider gën prérogative assemblée nationale nga xëy nga ne un député est-ce que ba ñuy fal. Mm-hmm. est-ce que ba ñuy fal dañu fal Mame Diop moom kese mu nekk député assemblée nationale pour mu war a mën a am autorité dem ci ki mu bokkal parti kooku nekkoon ne dañoo bëggoon nga jox ñu yow sa xalaat ne dañu bëgg a tas assemblée nationale ça n'a logique. l'Assemblée nationale a été votée par le peuple sénégalais ñu yéene leen ko le président ne peut pas se lever ne moom par consultation du premier ministre ana prérogative bu premier ministre ci consultation boobu c'est le peuple qui a élu les, parlementaires normalement c'est les parlementaires la ñu war a consulter ñoom ñëpp ñu teg leen ñu wóor leen ñu leen ah est-ce que dañuy dissoudre wala du ñu dissoudre assemblée nationale pourquoi le président de la république xaar et je le félicite ah je vraiment je le félicite le président Macky Sall pour l'acte qu'il a posé mm-hmm. man toog naa fu nekk ci plage yooyu yëpp ma ne gëmuma mm-hmm. président bi ma xam gis ko ne dina def troisième mandat loolu moi je l'ai dit partout parce que man awma lenn loo xam ne contre naa ko Macky lu dul li mu wax ci je l'ai j'ai été constant depuis 2016 j'ai voté contre les référendums mm-hmm. te nee naa man bëgguma président la république def troisième mandat bëgg naa mu xëy fii Mermoz ak soxna Marème ñu leen di gis ñu toog ci réew mi ça loolu laa mës a ñaan yàlla après yàlla mën na ko may et j'ai même défendu qu'il doit même aller prendre le siège des Nations Unies donc man ça je le défends pour le président de la République mais je n'ai aucune visibilité parce que ci lu tax ñu war a mën a yàkkamti ba dugal benn article boo xam ne assemblée nationale boo xam ne dafa am indépendance am ñu ñëw laaj président laaj na yow am na déjà nee nañ dans deux ans lan mooy précipité lan moo indi précipitation bu ñuy dugal benn article boo xam ne dañuy ne monsieur le premier ministre monsieur le le, président de l'Assemblée nationale je souhaiterais dissoudre l'Assemblée nationale oui monsieur le président vous avez le premier ministre de toute façon il est nommé par le président il peut pas dire non mm-hmm. ça c'est logique l'Assemblée nationale Mamadou Diop il il a été nommé par, le président de la République qu'est-ce que ñooñu mën scier la branche sur laquelle ils sont assis wàññi seen propre doole la wàññi seen propre doole la aussi bien pour l'opposition que le que pour le pouvoir aujourd'hui l'article 87 boobu mhm. je demande solennellement au président de la République et au groupe Benno Bokk Yaakaar de le retirer parce que on a voté ici un référendum pour consolider mais ce n'est pas lii ñuy teg nii ça ne consolide pas ni la démocratie ni l'Assemblée nationale au contraire ça affaiblit l'Assemblée nationale le président de la République a ses en tant qu'exécutif mmh. l'Assemblée nationale doit passer loolu mooy équilibre du pouvoir mais yow bi lay équilibré nga ne yow yaa koy dissoudre bu la neexee mais président de la République sax day dem mais celui qui vient après. Ouais. s'il y a un calcul politique pensant que yow boo ko dissoudre boo couplé assemblée euh, boo couplé législative yi que di nga mën a gagner tu peux avoir tort et ça peut être un couteau à double tranchant boo xam ne dina dal sa kaw donc le président de la république il n'a qu'à consolider li mu am ci ginnaawam et retirer cette kii appliquer li nga xam ne le consensus bi am ci assa ci pendant le dialogue et renforcer la démocratie mais man ci li ma gis ci article 87 bi vraiment je ne vois pas l'opportunité du moment mm-hmm. d'introduire quelque chose qui affaiblit l'Assemblée nationale qui rend l'Assemblée nationale plus euh, plus dépendante de l'exécutif et moi pour moi pour la démocratie c'est pas bon